mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex bànneex lay doon euh, saa su jot ñuy euh, feggoog yéen ci Walf TV euh, leeru jamono si seen émission bile di weer weer lay weer weer lay li ko tax a jóg moom moo di gunge askan wi gunge leen itam si bépp jàngoro goo xamante ne umpale nañ ko wala ñu ngi dund ak moom. ñu wax leen matuwaay yi nga xamante ne lañ ci war a jël ngir fegg ko wara ngir euh, faj ko wala ngir euh, li nga xamante ne sax euh, moom moo di wéy moom waaye ci jàmm ak salaam ba du la lottal ponk googu nag saa su jot suñ koy waxtaanee dama ciy feggo ak ki nga xamante ne moom moo di docteur Cheikh Ahmed Tidiane Gomis mectel Cheikh Tidiane Mbodj may jégalu bu baax Cheikh Tidiane Gomis sama lakkal la moo tax tur bi takk ci euh, làmmiñ bi may jégalu waaye sotti ceek def ci la docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj may kon di feggoo ko moom ñaari ay bés bu jot yemoo ko talaata mbégteef bànneex lay doon docteur ma ziar la jox la sa wàccuwaay tatagal la. Euh, jërëjëf euh, soxna Awa Diop Ndiaye ginnaaw bi ma nuyoo waa Sénégal yëpp maa ngi wax toujours rek li ma gëm. moom mooy toujours rek di ñaax nit ñi di ñaax sama bopp surtout ci ñu sant yàlla euh, ndaxte damay dem si médecine bi fu xóot a xóot tax may wax sant yàlla parce que xam nga am na benn euh, théâtre kat da doon bind ay pièces théâtre ku tudd Shakespeare anglais la woon mm-hmm. dafa doon wax to be or not to be that's the question maanaam euh, absolument maanaam daal luy mbir mbir bu dee wolof lañ koy wax mm-hmm. moom mooy juddu nekk wala bañ a nekk parce que ku nekkul moom mhm. du tala xuloo du mhm. léegi nag ñun ñi nekk pour le moment parce que mhm. ñi ngi fii euh, bu ñu xoolee date bi di wax euh, ñu sante ko yàlla de xam ni ay téeméeri at avant ñi fi nekkoon dem nañu te ay junni at yi nar a ñëw wala ay téeméeri at yi nar a ñëw tamit duñ fi nekk donc moo tax may ñaax nit ki xam nga xuloo bu bëri werante bi mer day indi ci santé lu ñu naan ay daf ay ndox yu ñu naan ay adrénaline ak yooyu yuy indi stress te donc day yàq sa santé te saa yooyu sant yàlla day nekk effet positif boo xam ni lu baax mooy génn sa yaram donc ngay defar sa wér-gu-yaram mhm. comme dañ fi nekk pour wér-gu-yaram nag c'est vrai ñun ñëpp am nañ ay problème mais ñu jiital sant yàlla bi dafa am solo lool mhm. parce que ci suñu santé aussi daf ñu ciy dimbali mhm. donc loolu daal euh, mu mooy li ma gëm si philosophie sama philosophie di xam ne tamit lu mu métti métti juddu rek nekk nit bëgg a dund dafa am solo mhm. yàlla yàlla jox wér yaram ak gudd fan ak alal nit ñëpp surtout waa Sénégal ba nga xam ni euh, problème yi dina wàññeeku jërëjëf euh, docteur Cheikh Ahmed euh, Tidiane euh, Mbodj day baax ñuy ñaax itam saa su jot rek jullit yi rawatina askan wi ci li nga xamante ne rek moom moo di jàmm googu mm-hmm. ni nga ko waxee ci la wér gi yaram di mën a am ndax li nga xamante ne moom moo di stress su duggee rek indi na li nga xamante ne moom moo di jàngoro tey am benn jàngoro goo xamante ne tàmbali woon nañ ko ay bës bële mm-hmm. ñu dippee yëpp ndoxub siti waaye mm-hmm. faram fàcce woon nañu ponk yi nga xamante ne tegal nañu ko wan ñu lan mooy euh, siti yi yooyu naka lañu ñu mën a dippee li nga xamante ne moom moo di seeni i tur mën leen a ràññetle ngir mën leen a faj mu desoon ponk yoo xamante ne jotuñu ko woon càmbar jotuñu ko woon faxam fàcce itam bokk na ci benn boo xamante ne dañu ko jukki tey mu di examen laataa ñuy ñëw ca ba ca toftalu euh, jërëjëf soxna Awa Diop Ndiaye xam nga dañu ni wolof dafa jël benn kàddu te neexul ba neexul nag nit ñëpp seen xel lañ leen di laaj ñu xool mu tuddee ko ay téeméeri téeméeri feebar xam nga loolu dina jafe toujours damay tooñ di la tooñaale sax di wax bu ñu ñëwoon ci Walfajri ñëpp tudd Awa Diop Ndiaye pour ñu xàmmee la ki may def ak émission dina jafe mhm. loolu yëpp pour wax ni euh, du ñu toog di wax ni nañu baare tur bi kenn du ko waxati waaye dañuy fekk nit ñi ci tur boobu ndoxum siti waaye nag di leen ko ràññetle xam nga lu tax faj bi moo tax ndaxte da ngay gis ay façon yu nekk yoo xam ne bii nii lañ koy faje bii nee lañ koy faje xam nga jotoon nañ fi wax syphilis nga xam ni piqûre antibiotique moo koy faj ñu wax fi psoriasis nga xam ni faj bi jafe na da ngay jël ay pommade rek di def mm-hmm. euh, ñu wax ci scléroderme mi nga xam ne d'abord ni muy ñëwee yaram bi mooy xeex yaram bi te faj bi jafe loolu mm-hmm. donc rien que ñett yooyu rek déjà doy na waar. ñëw nañ ba wax zona euh, te xam ni faj bi tamit moom pratiquement amul faj da ngay ñëw rek bu méttee nga daal di jël garab bu métti donc mënuñu jël loo xam ni dafa wuute ñu tudde ko benn waaye comme loolu la ñuy wax kon ay xeetu ndoxum siti xeetu ndoxum siti mm-hmm. bii ñu nar a wax nag moom mooy eczéma mu ngi jóge ci grec euh, moom mooy loo xam ni day génn di bax liy génn di baax li génn di bax nag bu ko xoolee ci ay picc yi eczéma noonu lay commencé ñu koy tuddee eczéma aigu dafay ñëw ay picc am bu dee ko xees sax da koy gis mu xonq lool picc yooyu dem ba ci yàgg nekk ay euh, ay ay loo xam ne day am ndox ba pare muy xaseen lool lool lool lool ndox yooyu day dem ba ci yàgg mu toj bu tojee nag muy muy wal ñu ni la da nga am ndoxum siti mm-hmm. muy eczéma aigu bu yàggee nga koy wokk di ko wokk di ko wokk ba ci yàgg mu mujj wow nga gis sa tànk yëpp wala si fi mu nekk yëpp nekk benn ndàbb noonu nga waa waa ay plaque nga koy nga koy wokk muy eczéma chronique mm-hmm. ñu dem a dem dem ba ci yàgg wokk bi metti ba nga xam ne waxuma plaque sax mais ay placard yu dijj lay def euh, ñu koy tuddee la lichenification nga gis ay ndàbb yu nganda ngand ngay wokk muy continuer yenn saa yi mu am ay ndeyu jàngoro yu ñu naan ko yu ciy laal moom staphylocoque mooy lépp loo foo amee taab rek pratiquement kook moo ko indi muy def ay yu mel ni comme lem ni mu mel jaune noonu euh, donc euh, nga xam ni donc ñuy wax eczéma infecté loolu nag lu koy faral di indi euh, moom mooy benn nit ki comme ay mécanicien wala ñiy liggéey ay ay ay di def ay teinture ak yeneen yu bëri wala sax jigéen yi nga xam ni dañuy laal ay soble yooyu yenn saa yi wala produit chimiques yi si si entreprise chimique yi industrie yi mhm. dañuy utiliser ay produit yu nga xam ni bu laalee seen der da koy da da koy allergie mu jaxase ko mu indi wokk boobu indi eczéma boobu mhm. yenn saa yi tamit mu ñëw ci presque ndono moom may xale yi nga xam ne dañuy judd ñu koy tuddee eczéma atopique ñu commencé seen si di xasen boo seetee sax sa liir da ngay gis muy tourner di di di di du mën a wax xasen mais da ngay gis ni muy def mhm. nga xam ni mi ngi mi am xasenu léegi ci loxo yi nii ak ci kanam gi ak foofu def ay ay ay ndàbb muy wakkatu ngay dem ci docteur yi ñu lay defal ay traitement muy dem di ñëw bu dee xale bu ndaw dina dem sax ba wér mais bu dee loolu souvent boo demee ba màgg mu xaw mu jeex am na yeneen façon eczéma maanaam ndoxum siti boo xam ni euh, bu deret ji circulé wul bu baax dawul bu baax xam nga sax foofu dañ fi gis boo gisee nit ñi di wax ndoxum si ci day joxe li day joxe li mais effectivement sa yaram sa tànk yi day tàng inflammation boobu ndax ndax tension bi muy def ah indi ndoxum siti ñu koy tuddee eczéma variqueux bon am na donc eczéma atopique moom mooy bi ma wax ci xale mhm. donc variqueux ak yeneen xeetu ndoxum siti yoo xam ni eczéma la mhm. euh, lu am solo nag souvent garaawul wokkatu bu métti bi rek mooy tax ba parfois muy surinfecté surtout bu dee ci kanam nag moytu wokkatu bi parce que après mën nga dem ba mu am sax tàngal sa yaram. Euh, buñ koy faj nag dañuy jël rek ay euh, dermocorticoïdes yi souvent moom mooy yi nga xam ni moom la jigéen yi di xoolee seen der en général di ko si def parce que looloo ko tax a jóg souvent dina baax. ak ay crème hydratante parce que sa der dafay wow. crème yooyu ñu ko ciy def bu demee ba am infection yu yu bëri nag ñuy joxe ay antibiotiques. Mm-hmm. pour dire que boobu benn xeetu ndoxum siti la ñëpp ndoxum siti lañ koy tuddee waaye li koy indee gi noonu ak ni mu mele ngi noonu mhm. donc mënuñu wax ni euh, dañuy jël yëpp rek kon maasale ko Mhm. nañu xam ne ay xeet la te lii benn rek ci xeet yi la mhm. docteur ni nga ko faram fàccee yaa ngi naan dafay def ay euh, gamba gamba yooyu des fois itam mu toj am ndox boo xamante ne moom moo ciy génn mhm. ndox moomu dañuy faral di dégg ne fu mu laal feneen fa itam ma day infecté wala keneen ku mu laal euh, dafay wàll waaw façon vésicule yooyu maanaam gamba yi dafa am ay yeneen xeetu ndoxum siti yoo xam ne ñu ngi koy tuddee les bulloses les les les les les les kii les dermatose bulleuses xam nga bu dee bii ma wax ndox boobu fan la jóge xam nga biir yaram dafa am euh, ndox c'est tout à fait normal parce que nit ndox la ak suux te ndox bi moo ëpp léegi nag der ci boppam yàlla subhaanahu wa daf ko jox mu ñuy protéger di ñu aar aar boo xam ni bu doy waar la parce que daf ñuy aar ci bu tàngaay yi ak seddaay amee bu tàngaay amee lu ci ëpp mu daal di bàyyeeku daal di dindi ndox bi nga ñaq muy vasodilatation ak sudation bu seddaay amee mu lemu pour que sedd bi du mën a dugg ci yaram bi parce que yaramu nit tàngaay bi dafa war a nekk aux alentours de 37 degrés mhm. bu boobaa donc mu protéger la ba pare ngay ngay ngay ngay ngay kii ngay ngay frissonner maanaam di di lox mm. pour que vraiment mu dugg ci biir doo doo tàngaay bi du la du la indi problème der boobu daf ñuy protéger ci euh, do ndeyu jàngoro yi ñëw di ñu laal fu nekk ñu ngi koy ñu ngi koy lii mm. mu ñuy protéger ba du ñu indil ay musiba ay feebar te boo duggee ci ndox der bi dina tax ba ndox bi du dugg sa biir yaram boo nekkee tamit fu fu wow foo xam ni dafa dafa tàng donc déshydratation bi nga xam ni bu doon fu xolleeku rek naaj bi nekk ci comme góom di nga gis ni muy déshydraté woo der bi moom moo tax bu du def loolu mm-hmm. donc der yu bëri dafay defar lu ñu naan mélanine maanaam lii nga xam ne moo ñuy ñuulal mm-hmm. di ñu protéger di joxe lu ñu naan ay kératinocyte loolu tamit moom moo tax ba der daal lépp lu ko laal du mën a dugg ci biir ba di kii donc der li mu am ci solo bari na. Mhm. léegi nag bu feebaree mu def gamb mais gamb boobu euh, der bi feebar nag ndox mi nekkoon ci yaram bi mooy génn kooku suñu ndox la c'est du plasma donc en général lu ci ëpp dafay stérile du mën a wàll dara donc ndox boobu tant que gaañuñu ko ba microbe dugg ci. en général du wàll. Mhm. donc moo tax yenn yi dañ koy wax wax bu ëpp. waaye nag dafa am leneen xam nga ci feebaru ndoxum siti yooyu euh, dafa am yoo xam ni les biloses yoo xam ne en fait bu feebaree boo bombee à côté xam nga dafa da yëpp a feebar waaye mhm. fii la génne. Mhm. fee boo bombee à côté comme ngay sang xale bi bomb ko wala nga jël sa loxo bës ko foofu tamit dafay def gamb en du question wàllante mais noonu lay noonu lay def mm. bon wàll nag lu ci ëpp moom mooy bu dee ndox bi ci biir dafa am ay microbe comme ay pistule mm-hmm. maanaam am na feebar yoo xam ni ci biir ay microbe lay am booba boobaa mën na dem di wàlle mm-hmm. mais li ñuy wax wàlle en fait dafa fekk mu laalandoo yëpp à la fois mais loolu euh, du demee noonu mm-hmm. euh, docteur gis nañu plaque yooyu itam euh, soo tàmbalee tooy itam faj bi day euh, doon lu jafe ndax duy méngoo ak li nga xamante ne moom moo di góom goo xamante ne ni dafa faqastalu daanu am ko ñu def ci bétadine ak euh, alcool ak yi ni mel mu wér bokkul la ak li nga xamante ne moom mooy gamba googu su demee ba am ko ba toj ba nekk góom ndax li même euh, procédé yooyu mun na ko fajam déet waaw xam nga der bi lu ci gën a lu ñuy gën a aar ci kaw ñu ngi koy tuddee épiderme muy lu ñu naan tissu épithélial dëgër bu baax mhm. kooku nag bu dee da am feebaru der te comme Sénégal feebaru der yépp dañoo ni moom mooy ndoxum siti selon ni mu yàqoo e donc euh, il faut que mu dem ñu koy fajaat feebar bu nekk nag ak ni nga xam ni temps bi muy jël pour wér ak temps bi muy jël li ñuy utiliser aussi pour def ko yenn saa yi mu yàgg yenn saa yi du yàgg saa dépend rek ci type bu maladie bi ak ni ñuy defee faj bi Eh, docteur eh, laaj nañu askan wi itam saa su jot ñu dégg ndoxum siti hmm. ñoom ku ci nekk docteur nga si sa fànn eh. am nga ci xam-xam ci jàngoro gu jip hmm. ñoom tamit am na ay ponk yoo xamante ne wax nañ ko ci wàllub ndoxu siti bi hmm. itam am na ay laaj yoo xamante ne jagleel nañ la ko du ñu def lu dul dem du côté de la régie fekk fa Cheikh Tidiane Ndiaye mu dégtal ñu élément bi ñuy soxna Aïcha Diakhaté ak élagie Hadj Saliou Bey utali woon naan daal feebar bi nga xam ne day yàq yaram nit ñi daal day faral di jàpp nit ñi di yàq seen yaram waaw loolu jot naa ko si xam euh, ndox siti mën na la tere euh, mën na la tere am doom aussi mën na la tere bañ am karaw waaw souvent karaw yi ngay gis ñuy chuté ak karaw yi ngay gis bopp ñu espacé noonu genre mel ni lu seen karaw yi du sëkk noonu loolu yëpp souvent ndoxu siti moo koy def euh, benn su dee góor dana la tere am doom dana euh, dagg sa karaw bopp sa tànk dana fett danay ruux mel ni dafa mu lu ñu lay jam ci suuf euh, sa tànk day bël da ñaq foo toll muy ñaq euh, soo ci mbir sa sa dàll muy xeeñ ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal mu ngi si. ndoxu si di ku ko amul ñëpp ko am dafa am nag bu nëbb bu feeñ. feebar bu bu am na bu bu am na bu feeñ. bënn bi moom day feeñ ci loxo yi ci tànk yi fu ne lay feeñ donc euh, faj ko daal moom baax na ci moom. day def ay góom ci loxo yi loxo yi day dëgër yenn yi ci tànk yi lay gën feeñee day ay am ay xar-xar nii ba pare yooyu yëpp ci ndoxum siti bi la waaw. en bi ma sama loxo yi moom dama daan euh, su may jàppee dara ba pare bu ma ko wëccee ba pare day sama loxo yi day fet Euh, li ma ko mën a laajte mooy feebar boobu nan la mënee dikk si nit te nan la ko mën a fajee tamit. Euh, dama koy dinaa posé dinaa ko laaj que ni naka la nit ñi di def euh, ndoxu siti naka la naka lañ ko mën a fajee ba nit ki donc mu ni mu koy am doom mu am doom soit nan la naka lay naka lay def proposition bi yoo xamante ni si dina fexe ba mu faj ko ba kara ba mu am kara su ma jàkkaarloo yow dama la bëgg laaj ndoxu siti parce que ñaari façon ndoxu cité la bi nëbb ak bi feeñ man bi nëbbu laa lay laaj naka nga mën a def ba amal ñu traitement bi début bi ak fee bi durée bi ñaata temps la mën a def. non bon est-ce que bu ñu bu ñu ko fajee ba pare ba nga foog ne wér na est-ce que dina mën a ñëwaat wala du ñëwaat loolu loolu rek laay mën a laajee xanaa waaw. <laughs> ñu jaajëfal bu baax euh, Aïcha Diakhaté ak El Hadj Saliou ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu taataanal kaddu yi nga xamante ne jag askan wi euh, jagleel nañ la ko docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj mhm. bi mujj rek euh, la ñuy njëkkee mhm. mooy ñu ci bëri laajte nañ ko moo di ndoxum siti bu nëbbu ak ndoxum siti bu feeñ ndax am na waaw man bala may tàmbali ci wax réponse yi maanaam tontu yi Euh, dama bëgg a rek toujours parce que tamit comme dañuy waxtaan di jàngale euh, indi benn misaal après ñu xool ba xam par rapport ak euh, ni ñuy waxtaane est-ce que loolu xëy na dina gën a gindi nit ñi mhm. ndaxte nit bu dee dafay ñëw muy wax benn mbir te mbir boobu ëmb lu bëri yow saa yoo koy tontu doo ko mën a wax rek ni mbir bi nii lañ koy faje mbir bi nii la danga koy wax de mbir bi kat boo ko tasaaroon bu ci nekk nga wax ma euh, dinaa la mën a wax nan laa koy defee maanaam xam nga nit bu ñëwee rek ni ma président du Sénégal comme ça ma waxtaan ci moom rek foofu la jëm alors mu wax loolu toog keneen ñëw ni ma eh yow da may waxal ci président yi ma sa nekk fii ci Sénégal mu ni Senghor ma ne ah kooku de homme de lettres la woon euh, te boom aar daf ko bëggoon te moo ñu njëkk indi fii indépendance ñu ne ah keneen ma ne Ablaye Wade moom def na opposition lu bari bi muy jël nguur gi yàgg euh, kii nag ku tabe la woon ku baax la woon ah euh, daal di wax loolu mun naa yem foofu ñu ni euh, bala may sotti sax Ablaye Wade kii Abdou Diouf ma ni ah kooku de gis nañ ni koo xam ni jàng na Euh, homme d'état la woon. ah homme la woon xam na lan mooy état euh, vraiment yooyu yëpp respecté nañ ko te temps bi fi nekkee par exemple indi na multipartisme ak yu mel noonu nga daal di xam ñu ne ah beneen président ma ne ah ab la ku tudd Macky Sall euh, lu wóor moom mooy li ñu gis nii mu ngi def tout son effort pour vraiment infrastructure yi gën a continuer ku am fulla la ku am fayda et cetera mun naa yam foofu. au moins bu ma waxee loolu nga ni ah maintenant xam naa lan mooy un peu président du Sénégal da nga ñëw rek président du Sénégal ça pose un problème waxtaan bi yëpp loolu la parce que bu nit ki waxee ndoxum si ci fekk jël na fukki téeméer wala lu mat ba téeméeri feebar man bu may tontu dama koy def benn par benn. Mm-hmm. alors pour léegi tontu ci euh, kii nga xam ni moom wax bu nëbbu wala bu feeñ day indi toujours waxtaan bi ci biir dafa am feebar yu bëree bëri bëri. lépp luy feebaru der ñu tuddee ko ndoxum siti te comme der ñëpp xam nañ nit boo ko gisee der bi kay jëkk a gis xanaa kay dañu ni feebaru dermatologie yi nga xam ni dañuy gis ay yëkk-yëkk yu nekk ci der bi bu boobaa mën naa la wax ah bu feeñ euh, syphilis bu nekkee ci deuxième stade bi maanaam weesu ay juróom-benni semaine ñu dugg ci bi nga xam ni ñaari at lay def mm-hmm. syphilis boobu day nekk ndoxum siti bu nga xam ne nu muy feeñee ci yaram dafay joxe au départ lu ñu naan ay roséole maanaam picc yoo xam ni dafay nekk ci dënn bi ñu toog ba mu yàgg ñu jël ay syphilide te yooyu yëpp day wàlle mm-hmm. syphilide yi nag picc yi day dem fu nekk et façon picc yu nekk di nga ko gis donc ma yem foofu rek ma ni bu feeñ ngi nii bu may wax tamit même lupus érythémateux mën naa wax ci boobu ni ah dafay dangay gis kanam gi def ay ay ay ay ay ay ay kii ay tâche ak yu mel noonu waaye syphilis boobu ma wax sànq mën naa wax nëbboom nëbboom mooy lan c'est que ndeyu jàngoro bi dafay dugg ci biir yaram bi mais di yàq ci yaram bi moo tax muy joxe bu dee syphilis secondaire tàngaay bu bëri mhm. muy joxe sa res ak sa gàddaam rëy ñuy hépatite splenomégalie muy joxe lu bari loo xam ni dafa nekk ci biir yaram te loolu boo koy euh, bëggee xam da ngay def ay analyses yu naan V euh, BV TPHA VDRL mu génneel la ni dafa positif. Mm-hmm. donc boobu feebar muy ndoxum siti feeñ na ci yaram ak picc yooyu mais nëbbu na ci biir ak analyse moo tax munoo wax rek ndoxum siti bu nëbbu bu feeñ mais euh, tawat ci boppam moo mel noonu tawat boo gis dafay feeñ ci génn. nëbbu ci ci ci biir moo tax même ñun médecins yi ñuy def ay analyse mhm. malheureusement nag suñu médecine traditionnelle deful analyse pour bala xanaa boo defu analyse sax nooy xamee looy lu nëbbu xanaa da nga koy njort rek waaye mënoo ko xam mhm. donc loolu tontu boobu daal ci nëbbu ak feeñ bi lool loolu laa ci mën mhm. euh, beneen laaj bi itam docteur mi ngi aaju ci nee na mu mel ni dafa am ay euh, picotement même dafa am lu lay euh, jam nee na boobu itam ci ndoxum siti yi ba léegi ñi ñuy waxal ñëpp dañuy jël ay yëg-yëg yu bëri daal di koy méngale ak benn te loolu mën nañ koo xam parce que bu ñu xoolee syphilis bi may wax dafa lawoon Sénégal dafa law si Afrique te temps ba muy ñëw boo gisee kenn ki am ko am ay picc kenn ki am ko yaram bi tàng kenn ki am ko eh, di xaseno ak kenn ki donc yooyu yëpp nga jël ko eh, daal di koy wax ni tudde ko benn tur waaye nag yeneen feebar yi nga xam ni feebaru der la te bokkul ak syphilis boobu dara finalement dañ ko ci boole. dem ba comme yaram buy tàng maladie rhumatologique yi am na ko finalement nga daal di jël lépp luy maladie rhumatologique daal di ko ciy boole. moo tax bu sa yaram di tàng sa tengo yi di métti ñu ni effectivement ndoxum siti te tengo yi métti dinañ ko gis ci li ñu naan sclérodermie benn façon ndoxum siti dinañ ko gis ci lupus érythémateux dinañ ko gis ci psoriasis psoriasis mooy tawat boobu nga xam ni der bi day am partie yu nga xam ni au lieu que mu toog ñaar fukki fan ak juróom-ñett doog a doog a doog di def ndànk-ndànk ci ñetti fan rek la fay lay lay donc loolu moom mooy bi feeñ mais bi nekk ci biir da ngay dem mu am ay rhumatisme psoriasis mhm. nga xam ni sa day jàpp benn articulation mun a arthrite wala jàpp yu bëri ba def ay polyarthrite donc en fait jàng yombul noonu dañuy jël yëg-yëg yëpp te mën nga xool fukki feebar yu wuute ba pare bii am ñaari yëg-yëg fii bii am ñaari yëg-yëg fii bii am ñaari yëg fii te loolu sax lu ko lu ñu koy firndeel moom mooy xam nga siburu mm-hmm. siburu en fait moom mooy paludisme mais moom mooy tawat boobu nga xam ni benn ndeyu jàngoro bu tudd place ma plasmodium euh, moo en général moo ko joxe falciparum ñeenti façon la waaye dem nañ ba lépp yaram buy tàng rek ñu ni sibbiru donc toujours nañuy xam mi ngi mel ni rek bi ñu naan Médine moom mooy dëkk ñu dem ba ci yàgg ni euh, Médine euh, la ville du prophète parce que dara dina am ba nga xam ni dañ koy méngaleeg lu bëri cité bi nag loolu la jël nañ lu mat téeméeri tawat daal di koy tuddee mais comme téeméeri tawat mënuñu ko faj ak benn façon euh, traitement mais il est obligé ñu delluwaat ginnaaw xam ni quand même suñu médecine bi c'est en retard ci côté boobu nañu xoolaat parce que mënuloo jël syphilis di ko faje ak ay xob ay reen te pourtant day indi ndoxum si ci la munoo jël scléroderme bi nga xam ni ci biir yaram bi la yaram bi di xeex nga xam ni ay ay corticoïdes ak yooyu lañ ko war a faje nga bëgg ko faje ak ay xob c'est ainsi de suite ainsi de suite je pense que il faut ñu toj mbir mi euh, que ce soit les traditionnels buñ ci mënee discuter ak médecins yi état bi jàpp ci ñu xool quand même et puis ñu jël seen garab yi xool ko ba xam ban moo ci méngoo ak antibiotique ban moo ci méngoo ak corticoïde mais ban moo ci méngoo ak li mais mënuñu ko jaxase noonu parce que tamit médecine tubaab bi lu ci rafet moom mooy lu ñu jël mukk benn feebar di ko faje beneen feebar mhm. dañuy ci nekk ak nuñ ko war a faje ñu def ko. Mhm. Euh, docteur beneen fànn bi itam euh, mooy euh, li soxna si wax. Mhm. moo di ne dañu jàpp ne ku am siti rek doo am karaw mooy indi chute de cheveux yi. ak plaque yi nga xamante ne moom mooy tegu si cuir chevelu. jërëjëf xam nga loolu moom mooy rek toujours li ñu def jël lu bëri def ko def ko boole ko ci benn ndaxte effectivement boo jëlee lu ñu naan ay champignon ñu koy tuddee dermatophytie du cuir chevelu loolu ay ndeyu jàngoro yoo xam ne nit ñuy dunde ñun ñii noonu la ñuy dundee mhm. parce que waxoon naa ko ma ni borom bi subhaanahu wa taala dafa maandu dafa def ay mbindaafon yu rëy yu mag mu yëkkati euh, nit jox ko xel ba wax ko ko mais dafa def tamit ay mbindaafon yu tuuti te mbindaafon yu tuuti yooyu Euh, ni ñu ni nit amee importance certainement ci yàlla subhaanahu wa taala moom lañu amee parce que da leen di ñoom dañuy dund comme ni ñuy dund mm-hmm. la preuve sax yenn saa yi mindaafoon yooyu ni ñu tuutee tuuti ba mënuñu leen gis moo ñuy rey parce que ñooy dugg suñu yaram jox ñu ay maladie que ce soit euh, lèpre ngaa nag que ce soit tuberculose que ce soit sida n'importe quoi donc euh, en fait euh, microbe yooyu ñoom dañuy ñëw dugg si nit mën ko indil problème léegi euh, bu dee affaire dermatophyte yi di cuir chevelu boobu bu ñu ñëwee ci kawar gi di lekk ci kawar gi ah dund comme nekk ku nekk seen seen salon plateau ni ñuy toogee di seetaan suñu télé ñoom tey foofu la ñuy nekk ci kawar gi di def lu ñuy def yëpp di ci dund mais ci conséquences yi ah bu ñu baree ci yenn ki mun na dagg comme ça muy def chute de cheveux moo tax nga gis ñu koy ñu koy def traité bu dee ay yenn kii ñu ciy def ay ay ay spray daal di la koy pompeel ay yooyu bu dee garabu wolof tamit mun na ko tamit temps yëpp mhm. ñu def ko mu daal di jeex. Mhm. waaye dafa bari ay façon comme ni ma ko waxee parce que syphilis bii may wax ci syphilis secondaire dafay am loolu. Mhm. dañuy ñëw gis ay euh, ci kawar gi day mel ni comme sa nga jël sa tondeuse rek daal di koy daal di koy raser mu def ay placard yoo xam ni loolu ci yëg-yëg la te microbe bi moo koy joxe dañuy xool feebar bi ci boppam ñu doog a dem ba egsi ci mhm. euh, lu tax lii am mhm. ah lu mënuñu ñëw rek wax benn mot daa di wax mooy indi lii mooy indi lii mhm. en tout cas ñun dinañ ko tasaare ba nga xam ne dañuy wax syphilis bii mu ngi tudd euh, kii euh, doxum siti bi syphilis la tudd nii lañ koy fajee ndoxum siti bii mi ngi tudd sclérodermie nii lañ koy fajee bii psoriasis bii mën naa ci citer ay lu mat au moins téeméer. Mhm. Euh, bu doon am nañ temps pour. mais yooyu itam euh, pour euh, déceler ko docteur il faut nit ñi itam tàmm di def li nga xamante ne moom moo di consultation. dem seeti kër docteur yi. ñu defal leen prise de sang. waaw bu mën a déceler maladie bi. jërëjëf a spécifier ne bii la. absolument mhm. voilà li nga wax daal. Mhm. moom mooy solution bi parce que loo xam ni même man mii damay wax ni di jàng waaye lu ci ëpp mënu ma déterminer parce que du ma spécialiste dermatologue yi ñoo koy def dermatologue tamit man li ma liir xam naa ni loo ay ay ay affaire yi compliqué na parce que parfois day jaxasoo parce que picc mën nga ko am lu ñu naan lésion élémentaire au départ ñu mën ko xàmmee mais yow wokk nga ko bàyyi nga ko ba nga xam ni day jaxasoo ba nga xam ni day nuroog sax yeneen façon mm-hmm. donc parfois dañuy obligé nga dem ci ko xarañ mu xool ko nga demaat tamit def analyse mm-hmm. voilà boo defee analyse mu génne ak yeneen ak yeneen ñuy doog a faj parce que faj quand même yombul mhm. alors lu la daal nga ni lii lii rek ñu posé diagnostic diagnostic du noonu mhm. wala nga dem ci internet bi xool rek daa defe ni non non c'est très compliqué da mhm. jàng ay fanweeri at te ba léegi li ngay xam du bëri uh-huh. docteur beneen laaj bi soxna si laaj na ko keneen beneen waay ji itam laaj na ko mi ngi aaju ci nee nañu itam ndoxum siti boobu ci ku góor ki comme ku jigéen ki daf leen di tere am li nga xamante ne moom moo di doom xam nga bële passé sax maa ngi doon la ko laaj aha waaw ndoxum siti bi may bi ñuy waxtaanee léegi ñuy eczéma te nga xam ni ci kaw der rek la yem da nga xam ni mën nga jël ay yenn produit chimiques tax ay soble ay nem loo loo xam ni daal dafa la allergie. allergie kooku mënul tere am doom c'est pas possible parce que dafa nekk ci kaw waaye comme dañoo jël dermatologie bi yëpp def ko ndoxum siti ak rhumatologie mais il est vrai que am na maladie dermatologique yoo ko xam ne ay microbe bu ñu duggee ci biir mën nañ indi problème hmm. ba nit ki du am doom. donc du ndoxum city bi li ñu naan ndoxum city mooy kii parce que loolu dañ ko wax te teguñu ko ci preuve parce que xam-xam toujours preuve daf ci am solo mhm. waaye nit ki ñëw na yaramam tàng ak yu mel noonu nga ni dafa am ndoxum city alors que mën na am li tax amul doom xam nga lan la dafa am benn MSC bu ñu naan mycoplasme de chlamydia chlamydia yooyu daal di fatt trompe yi boucher trompe yi mais léegi nu mu sëy sëy tamit du mun a am doom parce que fa nga xam ne euh, foofu la euh, kii euh, ovule bi waroon war a war a jaar dem ba daje ak spermatozoïde bi maanaam ñaari meññeentu góor ak jigéen bi daje dafa am yoon moo yoon bu ñu waroon jaar daje fa ñu ñu baare leen donc te loolu ay chlamydia moo koy li loolu bu àndeek yaram bu tàng nga ñëw ni ndoxum siti moo tax amuloo doom non il faut ñu xool ban feebar exactement déterminer ko ñu ni bii feebar moom moo tax amuloo doon Uh -huh. uh, ci euh, fànn boobu ba euh, tey am na beneen laaj boo xamante ne jib na ci waa ji nee na moom su xasee jàpp dara ba bàyyi ko rek loxo yi day fett day fett waaw euh, der bis bu jot saa su nekk mu ngi mu ngi mu ngi mi ngi dañ waaw xam nga lii la ñuy wax la kératine moom dafa nekk ay comme ay rek ay euh, ay lamelles yoo xam ni à chaque fois muy daj te loolu buñ ko waxee mel ni soble ni muy bëree mel ni soble ni muy defee jërëjëf xam nga buñ ko waxee war nañ ko gëm parce que ku xool sa kawar boo xooma nag ba xam jigéenu tey yi ñoom jore nañ ay kawar parce que mel ni périg moom xam naa du màgg waaye <laughs> kawar moom ku xool sa kawar buy dem da ngay gis muy muy yéeg mais aussi daf koy def lépp ci nit lu dul yóor les les cellules cérébrales nga xam ni da koy koy waale moom mun nañ dund cent ans ak sidit yi euh, euh, dafay moo tax seen faj jafe euh, day màgg di changé nit ku nekk ba nga nekkee xale ak léegi mën na am changé nga fi lu bëri mm-hmm. léegi nag changement boobu nu muy def moom mooy yaram xam nga bonne santé mooy rek li war a am am mm-hmm. ngay noyyi normalement di lii normalement xol bi di def normalement et cetera mais dafa am feebar yoo xam ni ñu koy tuddee kératodermie palmoplantaire c'est-à-dire bu ñu waxee palmo moom mooy loxo plantaire ci kii bi euh, dafay def li ñu naan hyperkératose maanaam euh, kii bi euh, der yi ni mu waree di dañe noonu dafay yéex nga xam ni day day day accumulé wu def ndàbb mm-hmm. comme ça nga gis sa loxo dëgër yenn saa yi ay champignon mën na ko joxe donc yenn saa yi tamit xam nga ñiy liggéey rek Eh, mun na mun mun na tax mu dijji quoi. Mm-hmm. doo dadul dadul eh, effacé wu normalement. Mm-hmm. boo xëy jigéen ñi nga xam ni ñoom du ñu togg du ñu def dara dañuy toog fu neex rek xëy na ñoom seen problème yooyu duñ ko faral di am. bon am na tamit feebar bu tudd scléroderme mi nga xam ni tissu élas eh, élastique bi moom mooy yàqu da ngay dem ba ci yàgg dafay dijj tamit di fet en tout cas ay ndeyu jàngoro yu ñu naan champignon lu bëri dina joxe loolu. Mhm. docteur tey euh, ci fànn yi nga xamante ne cité nañ ko jëm euh, ci li ñu mën a méngale kon yëpp ak ay euh, ndoxum siti mhm. yan lañ ci mën a jàpp loo xamante ne war nañ koo mën a faj ba mu wér ndax yaram yi yàqu itam ndax ndoxum cité bëri na yaa ngi wax sànq produits yi nga xamante ne mhm. moom la jigéen ñi jël di ko xeesale itam bokk na ci yoo xamante ne dañ koy jël pour faj ndoxum siti waaye des tamit dina dem ba jural leen ñu seen yaram yi teg ay plaque ñuy wax ne ñoom dañoo am cité moo tax supporté wu ñu yooyu d'ailleurs sax euh, comme dafa am ku laajte woon ni nan lañ koy fajee euh, pour mu xam ni dañ koy tontu mënuñu wax ndoxum siti nan lañ koy fajee te loolu nag euh, mën nañ défier vraiment képp koo xam ni dafa wax ni ndoxum siti rek nii nga koy fajee parce que tamit nañu xel rek parce que ñun kenn ñun ñëpp kenn ëppantewul xel mais dañu déglu téeméeri feebar téeméeri façon faj il faut ñu xam ko syphilis benzatil benzil pénicilline mooy extensiline wala dicacilline nuñ ko tuddee noonu la sinon <laughs> amul problème te pourtant boobu ndoxum si ci la psoriasis moom dañuy faj ba sonn rek parce que da ngay def ay crème di diw muy ñëw xëy na ëllëg dinañ trouver garabam sclérodermie moom moom amul espoir bu bëri boo ñëwee am yenn feebar yi nga xam ni lupus érythémateux mun nga ko am mu nekk ci kaw ah moom tamit benn xeetu ndoxum si ci la bu nga xam ne bu dee ci der bi rek am nga chance nga faj mu wér mais bu dee dafa laal euh, xol bi ak rein yi day joxe insuffisance rénale kooku tamit faj bi am problème mm. donc dañuy xool feebar bi ñu xool possibilité faj bi te feebar yëpp bokkuñu ni mun nañ leen faj à cent pour cent am na yoo xam ni dañ koy faj à cent pour cent am na yuy yuy fajal boppam ak yoo xam ni malheureusement kenn mënu ci dara yenn façon canceru euh, der mélanome xaw buñ ko gisee ak tâche yu muy def ay yoon ndoxum sit lañ koy wax te souvent c'est très difficile à traiter c'est à un stade dépassé loolu xob dara garab dara nit ki mën na fàttu te mun naa ci cité ay yu bëri parce que xeetu ndoxum cité yi dañoo bari mhm. donc dama doon tontu kooku nii dañuy wax ni ah xeetu ndoxum cité bii kat ñu tuddee nii nan lañ koy faje ñu xool ba xam am na faj ou pas waaye mënuñu ko généraliser. Euh, léegi nag si loolu ñuy diw ji suñu jigéen yi di faral di diwoo ñu koy tuddee dermocorticoïde yi mhm. xam nga tubaab yi bi ñu xoolee seen ndoxum cité yi comme ñoom seen ndoxum cité yëpp dañ koy xool benn bu nekk ñu tuddee ko dara. dañu xool bi ñuy waxtaane tey ñuy eczéma te li koy indi di allergie ah ak yenn saa yi sax nga donn ko wala ni wax naa circulation deret bu baax bu baaxul mm-hmm. ñu gis ni loolu euh, pommade yooyu ñu créer créé bêta zone ay cortisone ak yooyu ñu ni buñ ko ci defee comme c'est anti inflammatoire parce que maladie inflammatoire la donc anti inflammatoire dafay tane loolu aussi mu am ay niveau niveau benn ñaar ñett bu faible ba bu fort te boo koy def souvent boo ko defee yenn saa yi sax da ko war a sauter te ci ay partie yu ndaw souvent nga koy def ñoom loolu moo ko tax a jóg waaye malheureusement c'est vrai euh, kenn du xëy na dañoo xamul parce que tamit ñàkk xam mooy tax xëy na sax ñuy dem bay def lenn li suñu jigéen yi di ko diwoo xëy na instant bu ndaw rek mu jox la dara waaye der ni mu baaxee ni mu dëgëre ak ni nga xamee ni li muy la ñuy protéger ci li ma wax noonu ay microbe yi ak yooyu yëpp mais boo ko defee yàq ko ba derme bi dañ mais finalement dafay fragile ba nga xam ni lépp lu nga xam ni mooy microbe mun na ci dugg ngay am ay abcès ay taab ndax ci dolli mélanine boobu mooy lu ñuul li nga xam ni moo ñuy protéger ak ak kii bi kératine bi loolu yëpp dañ der bi woyof léegi li mu ñu doon protéger dootuñu ko dootuñu ko mën a protéger dootuñu ko mën a aar nga jël si nag dolli corticoïde bu dee dafa foor ci sa yaram nga xam ne ñun sax bu ñuy joxee corticoïde bu dee dañ koy naan dañ lay wax juróomi fan ci dose normal après nag ñu wàññi dose bi bu dee maladie yi nga xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a def mm-hmm. donc ngay surveiller parce que bu yàggee day joxe diabète day joxe hypertension parce que noonu la yàlla moo bindee euh, garab boobu noonu dina changer sa sa sa façon graisse yi ni muy ni muy demee ngay dem ba ñu naan da ngay am faciès cushingoïde ah benn feebar bu ñu naan maladie de Cushing nga xam ni euh, kanam gi dafay rond en tout cas daal sa forme bi yëpp daal di changer sans compter nag euh, yeneen euh, yu nga xam ni da koy indi ci ci der bi. Mhm. bon parce que dañu gis ñoo xamante ne docteur suñ koy utiliser saa su dañu gis seen yaram yi di def ay plaques. waaw ñu naan dafa cere. peut-être kenn ki naan supporté wu ma ko ndax ndoxu cité bi su ma ko diwoo moo koy day génnee sama ndoxum cité exact parce que en réalité du génne ndoxum cité au contraire dafay dafa fay dafa fay créer euh, dafa fay sas xanaa li ñuy tudde ndoxum siti comme feebaru der boo gis ndoxum siti la mm. waaye problème bi foofu dafay jafe traité mm. gis nga euh, loolu ñuy wax comme ay cere gis nga suñu euh, suñu mélanine bi ni mu ni mu demee daa di yàlla subhaanahu wa taala daal koy fexe ba nga xam ni boo xoolee der bi yëpp dafay uniforme produit yooyu boo koy utiliser daf koy daf koy agrégé dafay def ba nga xam ni dangay gis yenn yi parti yi du am mais yenn parti yi ñu daal di concentré wu moo tax da ngay gis euh, doo doo xees completement mais da ngay xees fii ñuul fii luñ ci wax daal moom mooy évidemment suñuy doom suñuy jabar ba suñuy sax mag ñu leen di ñaan euh, bu ñu mënee parce que ñun en tant que médecin dañ koy dund te mu ñuy métti parce que ngay consulter kenn nga xool nga ni sama doom bi wala sama jabar bi fraiment li mu def bu xamoon du ko def parce que li muy yàq ak ñun aussi li ñuy am problème pour faj day jafe. Mm-hmm. donc évidemment modd modd la euh, te nit ku nekk aussi ginnaaw yàlla ak yonent bi yaa moom sa bopp mën nay wax yaa moom sa bopp mm-hmm. euh, mais. je pense que ñun ay éducateurs lañu dañuy ñaan vraiment nit ñi ñu xoolaat surtout xale yi jigéen yi te bon bëgguma def jugement de valeur mais quand même euh, benn peau bu uniforme te noir vraiment peau bu xees te xeesal je pense que yóbbulu ko dara. Mhm. loolu nag jugement de valeur la mais je pense que médecin dëgg dëgg dëgg bu tiimee. Euh, deru ki dina dina dina am jugement boobu. Mhm. comme ni ma euh, ko docteur euh, suñu ñi nga xamante ne tamit ñoo safoo leeru jamono rawatina émission weer weer la mhm. nekk ci page Facebook bi itam ñoom si la ñu bokk. Mhm. ni ñu leen ko waxee woon ñu ñuy baaxee li nga xamante ne moom moo di seen laaj ñu koy wax fii ci plateau bi waaye si moom nee na dafa jàpp ne ndoxuma sitilaam ndax rawatina ci li nga xamante ne moom moo di awraam. ndax saa suy sëy nee day métti te tout le temps ci pupus bi day am li nga xamante moom moo di irritation. waaw kooku ndoxum sitéem bi mi ngi tudd mycose ay eh, ndeyu jàngoro yu ñu naan candida candida albicans voilà Cheikh Mbodj laa tudd moom mu ngi tudd candida albicans. mindaafoon mhm. la comme ñun ñi donc lu ci ëpp loolu moo koy indi. Mhm. kooku il suffit ñu jox ko ay crème antimycosique bari na ci pharmacie bari docteur yi xam nañ ko. wa ilaa aussi ñu jox ko mu naan te aussi soxnaam comme jigéen dafa faral di am champignon am ñu koy tuddee ay perte blanche ñu traité waale ko mu jeex amul benn problème moo tax ma wax ni ndoxum siti boo gis da nga koy ràññeetle xam kii li ko indi doo ko xam ni nga koy faje Mm-hmm. Euh, docteur soxna si moom nee na wey yi chaque jour day craquelé wala muy lakk ba ñuul mel ni dafa teglante ah. nee na li ni mel daal moom moo ko sonal ñu wax ko ne ndoxum siti la te kër docteur nañu ci dara déedéet non seulement li ñu naan kër docteur mën nañ ci dara mais ñoom sax ñoo ci mën dara lu tax kooku li mu am ñi ngi koy tuddee onychomycose c'est vrai que de temps en temps ñun sax dañuy def diagnostic différentiel parce que du lu am ci weer rek ñu tuddee ko champignon mais lu ci ëpp surtout loolu lay doon te ma yaakaar ni sax loolu la nde am na ay si différentiel de certains cancers ak yu mel noonu mais ci suis presque sûr que ni loolu la. Mm. léegi nag champignon yooyu ay mindaafoon ñoo ñoo koy joxe ah ñoo koy joxe te buñ ko joxee bu ñu xasee ba lekk we bi we boobu nga xam ni dafa war a màgg moom yàqu na ba pare buñ lay jox garab. dañ lay jox ay garab yoo xam ni da nga koy naan léegi mu commencé fa web bi saxe commencé saxe commencé di ko faj boo ko defee lu mat weer wala ñaari weer parce que quand traitement bi day jël temps bi nga xam ni moom mooy temps web bi pour mu màgg bu boobaa dina deñ évidemment dinañ ci def yenn samit ay traitement ko di ci def ay yenn yenn kii émail ay mel noonu mais lu wóor moom mooy nii loolu lu ci ëpp ay champignon ñoo koy joxe te justement ñii ñuy wax tubaab xam nga en bu ñuy wax tubaab yi wala yooyu mënuñu ci dara c'est que tubaab yi xam nga Sénégal ñaata la def naa douze millions. quatorze millions waaw quatorze millions. léegi ñaata nit ñoo fi jàng affaire santé mooy médecin yi bare wuñu ak ak ñu ñu naan maaman yi médecin traditionnel yi. médecin traditionnel yi ñan ñoo fi am seen xam-xamu maam wala xam-xam boo xam ni vraiment dañ ko dañ ko téye bu baax ca yu ca yu yàgg ya ba di koy utiliser. loolu mun na am tamit bariwul. Mm. ban façon médecine la ñuy def est-ce que médecine buy def analyse la est-ce que médecine buy def diagnostic différentiel maanaam bu dara amee ñu xool yu bëri et cetera et cetera bariwul. Mm-hmm. léegi lan la ñuy wax médecine tubaab américains yi ñaata lañu plus de xaw ma deux cent millions chinois yi ñaata lañu. Mm. c'est une médecine bu xam ni euh, c'est universel te lu ñu xam ay kàngam yoo xam ni dañuy dañuy réunir di def ay congrès fu nekk. lu ñu xam-xam ko même man sama jàng bu bëri sax léegi dootuma bouger te seen xam-xam dañ ci yéwén mm-hmm. parce que tout est sur le net nga ñëw xool vérifier mais quand même nañu dimbali bu ñu mën a comparer ay ay ay loo xam ne mën nañu comparer nee naa bu dee xam-xam bu dee yaru bu dee yaru ak diine suñu maam yi franchement kenn mënu leen te dañ leen di roy mais bu dee vraiment technologie ak science ngir yàlla nañu jéem a avancé jël li nga xam ni moom la tubaab yi am ñu aki moo ko ci lu baax mais pour avancer mais ñu toog fii ngay wax tubaab yi xamuñu ci dara alors que yow da ngay jël fukki téeméeri feebar daal di koy tuddee benn tur ah ah bëgg ci def ay cinquante mille affaire te amuloo sax benn analyse boo xam ni moom nga koy déterminer mm. Mm. non il faut que yenn yi quand ñu wax ko mm-hmm. ñu pousse ko fële xam ni ndoxum siti boobu muy wax na dem si benn dermatologue balaa trois mois wéy normal dina normal docteur euh, kii moom dafay ne euh, li nga xamante moom moo di ay euh, téngoowam dafa def sax photo bi xam naa ne ah. prochaine fois dinañu publier photo bi photo téngoo yi lu ci mel ni oom yi mu mel ni dafa am ay bulbul yi ci nekk waaw mel ni lu xoosu noonu nee nañ ko siti la waaw te nee na yooyu daf ko sonal ci téngoo yi ak ci li nga xamante ne moo di conc yi jërëjëf du ma wax ne du siti parce que comme damay jël sama waxu dëkk après daal di xool lan lay méngoo. Mhm. mais mën nañ wax ni de xëy na siti boobu siti examen bii ñuy waxtaane la il faut euh, bu doon nag ku ñuy jalogente dañ koy laaj ndax dina xasen mhm. ndax defoon na ay ay ay ay ay bul yoo xam ni dafa yoon ak kii mais euh, lu ci ëpp quand même ci côté yooyu ndoxum siti yooyu ñuy wax examen dina ko nekk mhm. mais évidemment mën na nekk yu bëri te loolu moom mooy intérêt de la médecine c'est que boo ñëwee dañuy xool di xool di def ay analyse di def diagnostic différentiel parce que effectivement lu mën a indi loolu bari na bu ñu xoolee diagnostic différentiel def ay analyse rek ñu ne ah bii kat bii xeetu ndoxum siti la bu boobaa nag faj bi dina gën a yomb. Mhm. mais nag yu ci bëri ci côté yooyu quand même. ci eczéma eczéma dina ko faral. Mhm. docteur kii nee na plante PM yi day euh, tàng jër. Mhm. ba pare mu mel ni dafa am ay taches noirâtres soo xoolee ci suufu tànk bi te moom tànkam dafa xonq waaw kooku moom na dem seeti effectivement un dermatologue wala un médecin euh, xam nga tànk yuy tàng li ma wax léegi ci benn xeetu ndoxum siti eczéma mun na ko def maanaam bu dee sa sa sa deret ni muy dawee dafa ñu koy tuddee eczéma variqueux wala sax ñi am varice parce que deret day jóge ci xol bi jaar ci li ñu naan artère maanaam yi nga xam ni moo koy joxe cër yëpp pour ñu dund bu cër yi liggéeyee ba pare jël mbalit yeeg yooyu jox ko Euh, yeneen xeetu sidditu deret yi ñu naan les veines ñu yéegal ko léegi nag yéegal boobu parfois day jafe en tout cas boo amee problème circulation parce que lu bari mën na ko indi ay varices ak yu mel noonu bu boobaa sa yaram day sa sa sa deret day sa tànk day tàng mhm. parce que effectivement tànk dafa tàng mhm. am na yeneen yu bëri ñu ngi koy tuddee burning foot yoo xam ne mën na ko indi euh, l' essentiel ñun boo ñëwee si médecin da la da koy seet seetantel ko ba gis ko même yenn saa yi sax ñun dañuy xool ba sonn du ñu gis mais du tere dañuy xam ni lii rek c'est naturel parce que nit moo compliqué nit moo complexe yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ni dama bind nit ci anam bu rafet mhm. mais loolu médecin ci côté boobu moom ko mën a xam mhm. te ñun sax ba tey xamaguñ ci lu bëri pour dire que rek c'est tellement compliqué que lu bëri mën na ko indi noom moom na dem seeti médecin et puis il verra ba xam dina dina tamit Mhm. docteur euh, kii nee na moom dafa am ay euh, plaque ci ginnaawam. plaque yi dem ba def ay taches yu weex ñu waxoon ko ne xam la faj na ko façon faj bu nekk. waaye mujj gi ñu ne ko lii ndoxum siti la na dem faji ko. waaw xam nga plaque yooyu ay la yéwén problème mu dermatologique la problème mu der la effectivement benn xeetu ndoxum siti xam nga bu dee sax euh, xam au moins foofu jël nañ fa benn. Euh, daal di koy tuddee dara quoi. Mhm. bon bu dee xam nag ñëpp xam nañ ni euh, am na garab yu efficace euh, yoo xam ne anti champignon la léegi sax traitement benn yoon la ne bu yàgg ba dañ daan jox ay garab yu yàgg mais xam nga progrès bi rek parce que tubaab mhm. ñoom lu ñu def rek dañuy jéema a raw seen maam yi quoi. ba mhm. def nañ produit yu nga xam ne bu dee xam boo ko defee benn yoon mu daal di wér loolu mooy intérêt médecine diagnostic différentiel bu woon loolu ñëpp nekk médecin mhm. da ngay ñëw nga xool mun ngay avancer de muy jafe ngay def analyse yenn saa yi di ngay dem bay def sax biopsie coppati ci der bi xool ba xam lan la effectivement mun na nekk affaire yu bëree bëree bëri mhm. te yooyu yëpp ay xeetu ndoxum siti la mais au moins ñun dañ koy jéem a essayer caractériser ko xool li ko indi ak ban façon faj lañ koy faj mhm. docteur xam naa bi mooy laaj bu mujj bi moom la ñuy mujjee jël euh, Mara Ndiaye la tudd moom nee na mi ngi rafetlu émission bi mhm. nee na nañu wa tudd turam ci télé bi kon Mara nga koy nuyu mhm. nee na heure daal moom moo ko sonal heure te nee na heure tamit euh, saa su jot dañ ko naan euh, ndoxum siti la ndax mën na ko méngaleeg ndoxum siti ndax itam su ko fajee dina wér waaw heure yi bari na façon parce que xam nga ci dermatologie looy gis day commencé ci benn ñu koy tuddee par exemple euh, pistule wala euh, placard wala euh, éruption yi daal day commencé ci benn mhm. mais plus muy gën a dem feebar bi plus muy gën a law xam nga sànq bi ñuy wax affaire eczéma au début ni muy mel noonu boo koy wokk day mujj def ba def benn ndàbb ba nga xam ni finalement benn façon heure la mhm. bu dee heure bi mu am heure eczéma la nañ na dem si dermatologue wala médecin bu ko xam bu ko joxee loolu dermocorticoïdes yooyu famille yi di utiliser en général ak yeneen ak yeneen euh, ay crème hydratante euh, nga xam ni bon wax ko muy moytu di ko wax ak yu mel noonu xëy na mun na dem ba dañ mais am na yeneen façon heure euh, psoriasis <laughs> day def ay heure te heure moo gën a jafe parce que du même même feebar bi moo tax léegi na dem seeti en dermatologue moom seen xam-xam màcc na ci eh, ñu war a xam bii façon heure ban façon la ban façon ndoxum si ci la bii ban façon la ak bii ban façon la te kon dina wér incha allah. Mhm. Eh, docteur tey euh, ci bu fekkoon ne bëgg nañu élaguer kon sujet li nga xamante ne moom moo di ndoxum siti bi euh, tey fan la war a mën a taxawee. ne yii moom ku ko dégg war ko mën a méngaleeg su ndoxum siti war na dem fajee ko ci fànn bi wala ci fànn bi itam laataa may wax euh, ne dermato li tax mm. nit ñi di leen daw itam. seen ay garab seer na loolu euh, docteur. waaw garabu dermato li euh, bu chéré c'est que ñun tamit ah nañ suñu industrie pharmaceutique yi def effort parce que lu nekk dañ koy jëgaani ci tubaab yi. Mhm. ah nit nag boo soxlaa ay mbiram euh, il faut que mu mu mu mu li mu lay imposer rek ah ku la jox bët ni la fii ngay xool. léegi nag looloo tax recherche nationale ak yooyu baax. bon évidemment parfois suñu dëkk yi dañuy wax recherche dafa cher waaye daal mun nañ fexe ba médicaments génériques yi aussi luñ ciy mën a am mais ci médecine traditionnel bi aussi lépp luñ ci xam ni expertise xam nga problème bi du question ñu am suñu médecine di ko sànni mais nag quand même yow sax yi da gis kenn koo xam ni toog na amul xaalis chômé na mu jógee ci àll ba ñëw Dakar di test si ba caag mu ni mais attention am na ay créneaux yu neex fii comme nit ñi loo leen wax ñu am mais xaaral ma commencé dem def benn affaire fële quoi daal di ñëw jël ay reenam ay kii ak yooyu ma ñëpp nañ def mais am nañ ñoo xam ne noonu la ñu def ah, après commencé mais di kii di laaj ñu seer na ay yooyu di dem ba ci yàgg rek di alhamdulilah parfois sax mu ñëw ci médecine moderne bi xool yenn kii yi daal defar ay affaire am def donc pour dire que ni euh, problème bi moom mooy seen problème quand même national il faut que aussi l'État xam nun nan la ñuy orienter te loolu c' est les rôles de tous de les états et tous les gouvernements yu fi mas a nekk. Uh-huh. ku ci nekk nag ak li ñu ciy def yenn saa problème budgétaire aussi moom mooy tax souvent rek euh, yenn yi duñ ko mën quoi gis nga Amérique sax seen président bi mi ngi commencé bëgg wàññi ay affaire au budget de la recherche ba mu am problème comme quoi vraiment ça c' est problème problèmes euh, yu tax muy cher. Uh-huh. mais daal dermatologue daal lii ñuy wax mboxum siti ci feebaru der ñoom ñoo ci gën a aay. évidemment comme léegi dañ ko dañu tarxiis ba boole ci sax ay rhumatologie bu sa yaram tàngee ci biir nga am inflammation ñu ni bu boobaa tamit ñu xam ni rhumatologue yi ñu ngi faj ndoxum siti mhm. mais bu ma amoon benn message bu may wax rek mooy li ma waxoon même si joxe exemple suñu président yi ak yu mel noonu dara daal bu ëmbee lu bëri boo ko bëggee xam da koy toj waaw da nga koy toj nga xool boo jëloon benn benn bul bu mag rek nga ni bul te fekk ci biir ay xaalis yu neex ay ay ay ay ay ay poison ay yooyu mais boo bëggee xam bul bi da nga koy xar daal di wax bii kat baax na xaalis la naa dugal sama poche bii moom posen la naa ko pousse et cetera mais noonu ngay mën a xam mais suñu médecine traditionnelle bi mais mënuñu euh, te man sama benn copain ay moom côté yooyu la nekk eh siti siti si daal di jël toute la médecine bu waxee ba ci ak ma ni ko attention yow li ngay wax lii colopathie la te yow yaa ngi ko boole ci sa siti bi siti kii di kii mu wax ma ne hey xaaral lii ngay wax nii hémorroïde la te yaa ngi koy boole ci sa siti c'est-à-dire ay affaire u veine donc ñu jël euh, vraiment amalgame boobu ñu toog ñu yoree racines yi tamit ñu xam ni yaram kenn du ci dugal lu ñu xamul hmm. roño yi dañoo fragile te insuffisance rénale dafa metti te dafa cher ñu dimbali nit ñi ci bala ñuy dugal dara ci nitu ci ci yaramu nit ñu def ko amul benn feebar bu ñuy wax ni waxoon naa ne mu yokk nay gën bëgg a dee ñu ni c'est bien baax na dafay génne parce que bala muy baax de c'est nekk mm. feebar da nga dindi mu dem mm. doo wax da ngay jox mu koy génne donc ñu def attention si garab yi ñuy jox nit ñi waaye comme nit ku nekk aussi alalam fu mu koy amee la ñu wax kon ñii naan mais yow yaa yore sa yaram nga xam vraiment li ngay daan mhm. ah parce que bu dee médicaments yi parfois ñun dañuy wax ni vingt milligrammes boo ko jëlee lii da ngay posen la et cetera et cetera donc je pense que science bi tamit loolu nañ ko ko gërëmee parce que c'est important ñu bañee def amalgame di réeral nit ñi daal mhm. euh, docteur mu mel ni sa turandoo mi ñuy wan ne waxtu bi euh, xooj nañu kaddu gi mujj gi euh, lañ lay doon kaddu gu mujj gi nag li may wax xam naa kenn du ko foog parce que dama am soxna bu baax naa wax turam bi dégg nga yàgg ma jàppale loolu fanweeri at franchement lu ma mas sol moo ko jënd ñëw teg ko man du ay tailleur ñoo may defal ak ay ah. kii yooyu vraiment masuma ko gërëm si ay ati at tey jii nag moom dama koy gërëm mu xam ni vraiment mhm. euh, lu ma am si côté xaalis genn wàll gi moom moo tax parce que man lu ma am joxe moom lu ma ko jox mu dencal ma après daal di koy def ah, foo xam ni après ça peut ça mhm. pense que cette fois-ci moom bi moom dafay wax maa tey quoi. <laughs> macha allah docteur eh, loolu tamit eh, ci la bokk. Ah. suñu yumpaañ kon eh, ñu koy jaajëfal bu baax. Mm. fas yéene topp ci ay tànkam rek roy ci moom macha allah yumpaañ menge. waaw kay jërëjëf docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj. Mm. mbégte doon saa su jot may feggoog yow ci émission bile di weer weer le